ci Serigne na mbake nek suñu xarit nek suñu frère nek suñu dekkendo nek dekkendo nak bo xamni ama am jariñ la ñu nuyu tamit bu baax serigne Omar mbake mom damay togn gaay ne len mom ci man la bokk mo bokk ci mom balay sama ngi lay nuyu di nuyu nag bu baax waa kër sëñ Touba yi fi daje yëpp waa kër sëñ Mourtada maa ngi leen di nuyu Mbacke Balaye si maa ngi leen di siyaar maa ngi nuyu tamit sëñ Kamal maa ngi lay nuyu bu baax a baax Mbacke Balaye si maa ngi nuyu waa kër Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ñoom ñi nga xam ne teew nañ fi ak école Padoa bi sëñ Cheikh naa di jàngale nuyu. Serigne Diagne maa ngi lay nuyu Dramé nuyu naa la bu wér nuyu nag soxna yi nga xam ne ñoo fi teew nuyu nag ki nga xam ne moo waral nag sama giri bi moom laa waroon jiital waaye xam nga jiital ab soxna moom day xaw a saayire waaye as joxe bi mii mooy sama goro moom nag laa war a nag jiital ah gorokat nag moom waaw maa ngi koy nuyu bu baax Touré. waaw nuyu naa waaw nuyu naa ñëpp nuyu naa tamit euh, grand bi bopp la jéeri maa ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu suñu soxna yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñu gunge ñu waa GLB lañ leen di wax di waa Géejawaay laa bokk ba baas bi ñëpp waa Géejawaay bokk lañ ndax ñoom ñëpp Géejawaay lañ bokk fii lañ dëkk xëy na am nañ ay benn benn ci ay gan rek sëñ bi ñu ñëw waaye fii daanaka ñëpp waa Géejawaay lañ <laughs> ñoom ñëpp nuyu nañ tam daayira fi teew waaw jaale nag suñu papa nekk itam suñu papaay xarit di Abdoulaye Timbo suñu président bi nga xam ne bi mu fi jógee yàggul yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe bi jaayil sayyidul wujud sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi nuyu tamit gan gu mag gi nga xam ne dafa dugg ci dëkk bi ñëw jaale si di président Macky Sall président de la république def na lu baax ci li mu ñëw jaale si benn mbokkam la nijaayam ñaar nekk militant am ñett nekk sénégalais ñeent nekk julit moo tax bi ma déggee ne man xaw ma ci woon dara sax bi ñuy ñëw lañu gis la garde rapprochée ak barrage bi ñu ne ñu président moo fi ñëw loolu nag sago géejawaay gépp la ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax moom sal sëñ xaadim ñu ngi lay gërëm di la nuyu bu wér sekk di la baalu àq waaw koy waay damaa xaw a mere nag après nga jubale ñu dee nga mbàkke waaw ndax moom conférence am bi moom damaa absenté woon xam nga damaa mën a wër topp géej waaye di wër rek waaw wax ji nag du gudd li ñuy wax daal mooy lépp luñ fi jaamu borom bi yàlla na ko yàlla nangu li ñu fi ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu képp koo xam ne indi na fi jàngoro yàlla bu mu ñibbeek moom këram ñi nga xam ni dañoo am ñi làqu ñëpp yàlla na leen yàlla xare aja Cheikh Béthio mi jóge fi barki démb wax naa ko ci rajo bi nee naa leen yonent nee na jullit képp koo xam ne làqu na moo xam jullit la wala du jullit boo mënulee wax ci moom lu rafet màndu rawatina koo xam ne gis nga ko ba tàyyi muy julli ñun ñi dëkkul ak moom sax gis nañ ko tabaskee korité muy julli kon mënuñu def lu dul ñaanal ko yàlla yàlla xare ko ci àjjana yu gën a kawe moom cuun bi jaayil seydal wujud sallallahu taala alayhi wa sallam mbàkke nag lii ñuy daw xam nga ko man nag dama dul toog ci bërëb boo xam ne dañu fay ñaan yàlla di fa khasida, ak di fa jàngi te duma fa wax sama soxol élection mairie yi dañu bëgg nga ñaanal yalla may ñu dal ci sam notaire gi wax naan njaareem golf sud ak euh, gunas ak mairie bu mag bee lañ bëgg nga ñaanal ñu Mbàkke yow lo ñaan borom bi nanguko sa lum ñaan yàlla ji da koy def te maam nag sët la ca maam yëpp a ngi ca sët élection yi lañ bëgg Mbàkke nga ñaanal ñu yàlla may ñu ndam bu mag ba man sama bopp maa ko bëgg waaw man waaw kay waay jeex na kon nag nañ kon nag nañ ko maa ko bëgg kon nag nañ ko tiit sëñ Fallou moo tax ma ne leen tey wax di duggul sama goro bi laay daanelewaat maa ngi lay nuyu bu wér Touré.